daanu man Pikine kañ la mel nii ana 200 pour cent Pikine yi seetaan ngeen ëmb seet ëmb seet gis ngeen ni koy xëpp gaalaaj ay rakkam yu ndaw lan ah ay grand frère am ay petit frère am ay bàjjanam ay ay ay ñi nga xam ne nii ñoom la bokkaloon te nekk ñu sax Pikine dañoo obligé jóge Pikine ñëw di ko xëpp ay gàllaaj ana Pape Sarr ana ñeneen ak ñeneen ana ama ana tey ni ngeen def a seen ñaaw na torop torop torop torop torop ëmb seen bu daanoo ah bu gàcce amee Pikine dina bari gàcce combat bi nag xam naa kii daan te bu ngeen nee teg ma defaat vidéo wax leen kan mooy daan te noonu lay amee incha allahu rabbi